liggéey bu am solo nag boo xam ne bi ñu ko yëkkatee gis nañ ne murid yëpp ci àdduna bi ak ci biir réew mi wuy si nañ ci ndax ci diaspora bi am euh, am représenté wu nañ ci lu ak 64 pays dans le monde loolu bokk na ci lii firndeel ne Touba ca kanam liggéey bu rëy rëy la boo xam ne murid yëpp a ngi ciy jàpp di wax rek ne euh, modèle la modèle de développement la modèle de développement local bi gën a efficace mooy lu mel ne Touba ca kanam ndax benn murit bu nekk 1000 francs la ñu laaj par weer loolu bu ko boolee bu ñu atteindre bu ñu atteindroon suñu objectif te jàpp nañ ne dinañ ci egg xëy na du du nekk benn at ñaari at ñu àgg ci bu boobaa at mu nekk dinañ mën a récolter 24 milliards. waaw am nañ yéenay mu jogee ci association dem ci fondation parce que ampleur bi mu am ak liggéey bi ñu war a def gis nañ ne fondation moo ko gën a attan moo gën a adéquate ci association. ndax euh, bi si njëkk rek mooy dañuy soxla ay exonération parce que li ñuy jënd ay matériel production wala matériel logistique dafa bari te loolu dafay laaj nga am exonération te xëy am fondation moo ci gaaw soxla nañ tamit am reconnaissance au niveau international wax la léegi ne la représenté wu nañ ci plus de 64 62 euh, pays te booy def mouvement de fonds fañ ko da jaar ci ay règles yu légal te xëy loolu am euh, benn juridiction bu bu international xëy na ci mën a dimbali. 64 pour cent ci perspectives yoo xam ne toujours ñu ngi koy étudier di ko ñu ngi koy étudier di ko dérouler wante at mu nekk dañuy xool priorité yi ñu jàpp ne moo gën a jàmp ñu jukki ci ñu am luñ ci génnee teg ko fa yéene cee dox ci at moomu teewul nag ñi ngi xalaat ne am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci en terme de collecte li ñuy am par weer bu gën a yokk ba àgg ci yenn niveau yi ci la song nag les grands travaux yi nga xam ne mooy projet yu mag yi Touba ca kanam wàllu assainissement jëm wàllu ndox jëm ci yeneen ak